الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني وهذا لي السلام عليكم ورحمة الله mbokk ñu del siwaat ci 2409 ci ndimbalul borom bi subhaanahu wa taala toll woon démb ci yëngu bu rëy bii nga xam ni mbokk yi ñu ngi koy yëngu jëmale ko ci màggal gi ñuy bañ nit ki nag topp yëngu yi ba sababluwul luy tax li muy def dëppoo ak lañ ko sant te gis nañ ni ñu bari ci loolu wàcc nañu raay bi bu yàgg l'essentiel bi moom ni ñu ko bëggee daal moom ñu ngi koy defee noonu euh, jeex na loolu moo tax taskiir muy fàttali toujours di fàttali nit ki fu tollu ci ak dundam ay yëngoom yëpp daal dëppoo ak li mu war a yëngu nga xam ni yàlla daf koo tàggat tàggatal ko kaw suuf moom ci boppam mu mën a jëriñoo li ci suuf lépp jox ko xel euh, xamal ko ni ko yomal xiyam am na fa ñaari terrain vide yoo xam ni pàkk bu ci nekk euh, yaa ko moom am nga fa kër mooy aljana muy sawara léegi nag gën kër ngay tabax xanaa këru aljana gi nga xam ne ay jëf yu baax ko koy tabax bàyyi fa këru jahannama gi nga xam ni jëf yu bon moo koy tabax mbokk yi loolu moo logique bi suñu borom ku ne am nga fa ñaari teere vide de tànnal nag booy tabax ñaari yi yaaw yow immigré nga dangaa tukki bitim réew nga ne yow nit ki fa nga jëm nag am nga fa ñaari pàkk yu dara nekkul cay moo tax loolu mu doon euh, euh, àllaaxira ku fa xam dara ah defe naa ne am na yoo xam doo ko def de doo ko def de dañ loo jàngal teg la ci yoon woo xam ni bind ko bàyyi fi muy garab yu am efficacité euh, ba ñëwee seen njàng mi ay ay ay ay pharmacie lañu njàngum Sëriñ Tuba pharmacie la moom mi nga xam ni ci niñ ko mën a waxee moom mooy euh, weesu na sax moom pharmacien moom ndax pharmacien yi liggéeyuñu garab yi kii nag moom dafa liggéey garab yi ñëw daal di koy eh, exposé yow nag malade bi euh, boo jëloon garab yi pharmacie bi yëpp yëpp te jëlewoo ko li ñu la ko waxee doo mu sawér yow docteur bi daq fee faj hmm? te mënoo faj sa bopp dara sa paj mi daanaka jëriñu la dara jëriñu la dara waaw nga euh, xëccoo bii nga dégg jamono naa ko dem ci euh, Alaaji Malick Ndiaye def li mu defan ci tabaski bi ba ñu bari am ci bénéfice junni junni senegale mu bëgg ko tollanti te xam naa gàmmo dana ko tollanti incha allah lii ma gis nii jàpp naa du ko bàyyi ndax solution la solution dina tax ni gaa yi doon yokkee xam ni kat euh, bu ñu yokkee noonu am nañu wujji wujji dafa baax wujji dafa baax de waaw su ko defee kon sama jëwri ñi nga xam ne ba léegi ñu ngi ci benn soxna rek ah loolu war na leen a soññi ñoom ñu fexe ba wut kaneen rek muy jàppale aaw bi alaakulaa lin daal kon eh, yàlla yàlla réussiral eh, ñu dem ba am ay biis yoo xam ne dina doy sëkk ndax day mel ni yii dakaar rek lay satisfaire ndax Dakar la mbooloo mi ëpp di jóge eh, kon nangami temps centaine ni biis yoo xam ni dafa lay jépaare ñu wax départ yi ci niñ ko tasaare di ko dalal Dakar ba Tëngéej day baax nag ñu am ñu amal région bu nekk moom euh, am ay kaari boppam bu ci jur Jurbel nga xam ni daanaka xañ na waaye yeneen région yëpp am seen bisu bopp rawatina yi gën a sori ñoom am ay bis yoo xam ni mën naa bañ a bari waaye ñu am ko waaw ko defee kon loolu système la système la waaye yaa ngi gis ñi nga xam ne ñu ngi ci tàmbalee mer ñu ngi tàmbalee maanaam population bi moom moo toll noo xam ni léegi boo gisee transporteur yi di yàgg xeex ñii ñu tudde ay euh, alu Dakar Touba Dakar Touba Ndar Touba Kaolack yii di ay oto yu ndaw client yi bëgg ko mu arrangé leen trop liñ yi laaj mën nañ ko transporteur yi leen bëgg nag état jëlee leen fi ah loolu góoma ni dina mën a sotti deux roues yii ñu bëgg tamit ñu jëlee leen fi nañ leen si ñoom ñëpp rek teg leen ci yoon deux yi dañoo war di jàng code de la route nañ leen ko jàngal nii ñuy faatoo ci tali bi def ay choc te dara yóbba yóbbu yóbbewu leen ko ñu ci bari ñoo xam ni eh, eh, dañoo respecté wul code de la route waroo dem nga dem ndax lan yow deux nga yor waroo duble fii nga duble bul duble doubler droite nga duble hmm? foo ruus tàkk na euh, ruus nga dem yooyu yëpp muy erreur yoo xam ni kenn ku ci ne gis na ko kon mbir yi lijjanti ko la laaj teg ko ci aw yoon nose ko ndax kenn ku ci la ngay jël di ci euh, sa kër teg ko ci aw yoon ñu bàyyi la nga doxal ko su dul noonu day gën a déporté ndax mu ci laaj dara teguñ ci aw yoon Eh, yàqu da ci am te daanaka du mujj fenn ndax doo am loo ko mën a toppee waaw ci côté yëpp nag la am côté yëpp ñu war ko eh, régulariser dafa jot mbokk yi dafa jot waaw eh, kon su ko defee li nga xam ni moom bëgg nañ ko ci dolli mooy ñàkk ndoxum tuubaa mi nga xam ne teguwul fenn fenn fenn lu ci bari nit ñi mën nañ koo mën nañ ko seede mooy ñi nga xam ni ñu ngi def ngir Tuuba ñàkk ndox saa su ne rawatina màggal ñenn ñi ñu jàppale ñenn ñi ñu gis jamono jii ñuy bëgg a màggali nga ñëw yu ak sab société téléphonique di gas Tuuba di dagg teeway jàmbur yi am na fa vidéo bi ñun yor nañ ko suñu wëlëre euh, foto ko dugal ko ci suñu group bi suñ Mbàkke Mara te ba mu wootee préfet préfet yëgul woon lu mel noonu ñu ngi loolu jël say rek Touba des màggal mois deux mois ah, yow ngay gas euh, sa say ngir lan yow ngir sa cabine ngir sa réseau téléphone yi dox ah, mel ni dafa amul benn benn bu fa jaar bu ñu war a tëral yow amul tàggoo da ngay def li ngay def rek vraiment doy na ndox mi ñi ci jàpp wax dëgg yàlla ñu di ko saboté bari lool waaye musuma cee dëgg ay sanction yu metti waxul dalul àgg fu mu war a àgg ndax soo fekkee li ñenn ñi xalaat ni Touba li ñu ko def rek def ko benn meer est-ce que mun ñu ko def rek euh, def ko léegi ay ay ay ay ay ay maire ci gox yi mu bañ a nekk benn maire am ñu ni loolu dina jur benn dina jur benn engouement boo xam ne mën naa yàq am ñu ne ah kay loolu mooy gën a defar waaye gis nga ko waaye bàyyi ko nii rek ah ah li nga xam ne moom lañ la ñëjjuba di nekk fa di yàq rek te léeg-léeg mu doon foo xam ne ñooñu dañ lay bett doo ko foog sax ñoom ci lañ bokk rek ngir ñaar. intérêt boo ci amee deuxième bi mooy euh, kiñ fa teg moom nga bëgg a yàqal sabote rek nga xam ni euh, dafa dafa xel da koo nanguwul sax li mu forage bee ci Touba jege ñeent fukki forage genn wàll gi rek rek bu jaaree yoon ñi xam ñëpp ñëpp ñëpp nee nañ Touba wërta manqué ndox ci douze mois yi laa wax genn wàll ga rek rek kon kay kon kay am na lu xew te léeg-léeg ñu signalé ci loo xam ne lii sabotage la sabotage la mel ni dañ koo mënut a faj ñu noonu ñu noonu kon ñuy ñëw di indaale seen xale yeet lu bari di ci am ñuy ñuy ñuy réccu ah xam naa euh, du ma bu kenn yóbbu ay xale de waaye war ngaa xool yow am fulla xale bi boo demee te doo ko mën a contrôler fi ngay wàcc ak ak fa nga jëm diggante bi mën nga mën nga fee am ay jafe-jafe yaa xale bi lool am na ñuy xam ne ay xale la ñu ay xale xale ndax kër gi yéen ñëpp mu leen fee bàyyi xale te mu leen a ñàkk dem ci li ngeen wax loo taxit euh, ñenn ñi nga xam ne man buñ ma laajee dama leen naa yéen moom da ngeen euh, toog ba ñu suba la màggal bu la neexee guddi gi nga dem continuer dem defal sa si say siyaar boo xëyee nekkal ci sa jaamu yàlla wala liggéey booy def bu añee ba noppit ba dallu foo déggee dakaar ah, ah, Dakar Dakar wala Kaolack Kaolack dellu si toog ndax waa kër gi ñëpp ñëpp ñu ngi Tuubaa te kër gi war naa am ko fi fanaan ba am na am na ñoo xam ñu ngi koy def fi ñu toll nii waaw. xam ni fii fi la ñuy fanaan daanaka bu booru quatre heures ñu jóge fi euh, jël jël oto ñëw Touba fa la ñuy ndékkee ñaare waaye daanaka bu julli tàkkusaan rek su ko defee ñu commencé rek dellu si waat waaw boo ko mënta dëkkee at mu ne am ku ko def waaye kër goo xëy la fa ne ci valeur jamono bii ni mu yàqu ñëpp ñëpp ut ko kenn du fa fanaan ñaar guddi ñeenti guddi loolu lu mën a ñàkk la laa wax mën a ñàkk la boroom kër nag léeg-léeg du am euh, sañ-sañu wala boog amul kilifteef walla boog euh, xër na lool ñu ni Tuubaa moom moom ku judd woon ñu ni suba la sax yow dañ lay yóbbaale tudde la Tuubaa euh, tudde la foofu ku feebar da dem ku faatu dem nangam nangam waaye jamono daa àgg la foo xam ne moom mbóojeel yi moom ñu ngi fi de buujeen yi ak yenn jegeen yi muy sama taalibe yu baax yooyu yooyu ñu ngi koy eh, loo xel nit ñi lool mbokk yi eh, waskurulaa fi aymin maadudaat ak yeneen aayat yu bari yoo xam ne maa ngi dégg sama wëlëre sama sëriñ sëñ yi di ko wax ngir bëgg bis yu mel nii bu ñëwee ñu ci xam ni sunu boroom bis bu ne ak la cay war a xew ak lam ca dogal ab julit war ca caa nga ngañaay lu rëy loo xam ni da koy jariñ ci kaw suuf jariñ ko biir alaxira incha allah jariñ ko ci biir suuf ah su ko defee kenn ku ci nekk fexe ba sa doole sa xam-xam sa alal ñett yi nga bokk ak nit ñi lu tuuti lu bari am nga ci dara ci ñett yi ma wax ñett yi ma wax kon dimbalante bi way néew doole yi nga xam ni fi mu toll nii yow mi góorlu di def ay safar ca ndakaaru ca ngaay ca dëkk sàngam euh, ay way néew doole yoo xam ni ñoom génn nañ seeni kër amuñu fu ñu màggale ñu nga fa kon li ngay def nga defee ko fa mu gën a fa ko gën a soxlaa loolu dafa baax torop dajale lu baree bari ci marché bi togg ko benn añ ñu lekk baax na de waaye nga yóbbu ko nga nga nga nga nga ci ay famille xanaa ko mën am na koo xam ni màggal problème am mooy fu muy jëlee ordinance bii mu war a jënd moom sax tëlul màggal waaye ordonnance la am problème ordonnance fi mu toll nii ak bari ak bari waxuma nga xam ne moom amuñu lu ñu màggale te fa lañ dëkk te am nañ njaboot waaye am na fu ñu yaakaar ni fa la ñuy jële ji añ ak reer ak ndékki ba mu jeex gis nga ko am na ko xam ni bor bii mu war na fay avant màggal gi la ko digal waaye amu ko am na béréb boo xam ni ah, benn million rek réglé na koñ ba yëpp yëpp ndax ah, ab dafa amatul wala seen fajukaay ba nangam yooyu yëpp nañ ko seet nañ ko seet mbokk yi fexe ba euh, mooy gën a xamle pas-pasu lislaam bu wér bi nga xam ne moom la suñu baa doon jàngale sur le si nga xam moom la jëloon di ci roy ki nga xam ni moom la euh, moom la moom la moom la jox boppam muy sayidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam euh, royan ko ba yeesal lu bari ci loo xam ne dafa lëntoon dafa lëntoon moytu lépp luy niru pot ci bis bi wala ci bis yi nga xam ni da nga ni yëpp yow dangay ngay màggal nga moytu luy niru pot ok ku musa bañ pola ku musa bañ kuy neenal waxtu wenn waxtu ku fonkal jaamu yàlla julli lool kon day mel ni ñëw fa te sa laalul suuf wala nga faat waxtu woo xam ni la la ko yóbbee mooy toppatoo lekk ak naan bànneexu ba fàtte loolu julli yow matagoo ko ab bi matagoo ko ab taalube mbokk yi dëkk boo xam ni la fa ëpp valeur ba léegi nii mooy fa ñuy dugg julli génn dugg julli génn loolu moo fa moo fa ëpp valeur ci dëkk bu réyee ni mooy deuxième capital la fa gën a cher ah demal Ndakaaru demal Ndakaaru xam nga day la euh, fa gën a cher du jàkk lu juma waaw du jàkk lu juma kon dëkk bu mel noonu nag nga xam ni ah euh, ab euh, bu doon kuñ mën a wax ni kii aw jullikaata la woon mooy ab jullikat la woon ci waxin ndax lii gën a fës ci ay bërëb yoo xam ni yaa ngi koy gis xam ni ñëwoon na fa Euh, fii de euh, suñ tubaa julli na fi fii de suñ tubaa julli na fi waa yow nag nga ni yaa ngi yaa ngi koy yaa ngi koy defal loxo xam ne moo la ko sant ah suñ tubaa euh, moo la sant bis bi nga nekk ci kër kër kër kër ba julli woo sant bis bi nga ni mun ma ñàkk siyaar di rang di siyaar di rang di siyaar ba julli woo ah, suñ tubaa moo la sant topp ci gan ñi topp ti gan ñi topp ci gan ñi ba julli woo xanaa ñi moo ma ni waaw de ndax moo la sant lii koo xam ne sax ba ñu koy waajal bëgg ko dugal ci këram gu mujj ba julli jotee dañ ko bàyyi foofa dem julli ci ñooñu ñooñu nag ñooy ñooy ñoo mat sañ tubaay taalo ñoom ñoo ko dégg waaye bu doon jamono jii de yow mu jëkk a wax ne a ah, te julli ji ba ñëw dina ah, ñu la buñ la ñemee dañ la ne waay jéem suñ bi wax ñu yaatu na waay lii lii déedéet nañ ko àggale bu ñu noppee julli rek ala waxtu jot nu yem foofu bu ñëwaat incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi alkarim silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا